قادر الأستاذ بايمار الذي حمست في أذنه آنفا قلت له أنه سوف يعتبر الارتباك والكسل لكل من سبقته بالميكروفون <laughs> ما شاء الله حضرة السادة الأساتذة والمقدمين والمريدين ومن معنا عبر العسير نعم لأن العالم اليوم أصبح كبيت بات فيه الكل وكل وكلما ضج مصوت في إحدى زواياه لباه الآخرون إذا فليقل القائل ما شاء فالعالم أذن واحدة تستمع وعين واحدة تشاهد فموضوعنا الليلة هو تربية البنات عند الشيخ إبراهيم نيس وأخاف إن توسعنا يا له من موضوع عميق وبحر طويل وبيداء مترامي الأطراف نخاف إن توسعنا فيه بالتطول أن يهيئ المؤذن لصلاة الفجر ونحن في بداية الموضوع لأن الشيخ كان يعرف ما للبنت المسلمة من حقوق وواجبات فقام بأداء الواجب في تربيتها بنتا وفي تربيتها أختا وفي تربيتها عمة وفي تربيتها خالة وفي تربيتها زوجة ليسرن شعلة تقتبس منها كل نساء هذه الأمة ورجالها وإذا النساء نشعن في أمية رضأ الرجال جهالة وخمولا أما هؤلاء الرجالات الكريمات المكرمات اليوم من بنات الشيخ إبراهيم كل بناته كريمات السيدة فاطمة الزهراء إبراهيم يس والأستاذة المرشدة السيدة رقية إبراهيم يس والخادمة لكتاب الله السيدة مريم إبراهيم يس والفاضلة التقية السيدة آه، أم الفايدة خادمة آه، خليفاته تغمدهن الله برداء الحفظ آه، ومن قدت منهن نحوه آه، رحمه, رحمه الله آه، كلهن مدارس تربية وتعليم لمن يهتم بالعلم والخلق لملا وقد سمعنا خطاب الوالد لبنات القرن منذ سوى الغد يا أيها البنات ذاهبن إلى نيل الملاء أما بأبدان خلاق فتربية النساء وتعليمهن من أهم مسائل الدين لأن النساء نصف أية أمة كما يلعبن في المجتمع أدوارا لا يمكن لغيرهن أن يلعبها فالإسلام أول من دعا إلى تحرير المرأة ويذكر أن أول أن أول من ألف في تحرير المرأة وهو رفاعة رافع الطحطاوي كتابه المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين وقد تولى عدة أدباء هذه المسؤولية الكبرى آه، وألفوا كتبا متعددة تتناول قضايا النساء المسلمة وأعظمهم أستاذ قاسم أمين الأستاذ قاسم أمين صاحب كتابي تحرير المرأة والمرأة الجديدة كما في دعوة أمير الشعراء إلى تحرير المرأة ورحم الله الشاعر خليل بن زافر الطرابلسي حيث يقول فلا أنت أجمل يا محمد خلقة وأجل أخلاقا وأعذب منهلا إن النساء وكن قبلك سلعة أضحين في أنوار شرعك مشعلا إن النساء وكن قبلك حطة أضحين من أنوار شرعك مشعلا أنت الذي جعل النساء شقائقا وأزلت سن الوائدات من الفلا وجعلت تحرير العبيد إبادة زلفى تنال بها الجنان وتجتلى هذا كتابك في البرية مشرقا يحيي جهولا أو يقوم أحولا لم يكشف العلماء سر حقيقة إلا وجاء به كتابك أولا والسلام معاد على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بولا من يانجي سنتي الله di مولانا رسول الله Euh, di nuyu ñi teew fii ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ginnaaw bi nuyoo dëkk bi ak imaam beeg borom dëkk bi ñoo ngi nuyu Oustaz Baye Mar li wax yëpp ci moom la nekk al muminu miratu axihi jullit toujours mooy seetu mbokkam ma loolu la xadis wax nit ki soo seetu di xool sa bopp ngay gis dafa tiim seetu gis boppam melo yi muy wax yëpp ay melam oustaz ndaw borom xam-xam la xakim la wax na wax ju am solo dina taalibe bi léeg-léeg dana joxe misaal ci sëriñam ci journal taalibe bi dana taxaw taxawaayu sëriñam ci journal taalibe bi dana taxaw taxawaayu sëriñam comme rajo mu ne taalibe bi dana taxaw taxawaayu sëriñam comme télévision mu ne journal da ngay lire rek rajo da ngay dégg rek télé da ngay dégg di gis mu ne léeg-léeg taalibe bi day taxaw taxawaayu sëriñam comme rajo rajo su la joxee journal soo yëree pour gis image bi da ko gis dégg rek nga ci am am na taalib boo xam ne dafa dafa taxaw ci sëriñam taxawaayu rajo maanaa day wax su waxee da nga dégg sëriñam ci biir wax ji waaye soo yëree pour xool sëriñ bi ndax da ko gis ci kay wax doo ko fa fekk waaye dana am taalib boo xam ne dafa taxaw ci sëriñam taxawaayu journal journal xibaar bi dana ñëw nga xool gis ay photo maanaa gis nga jëmmu sëriñ bi ci taalibe gi waaye ba léegi nag sëriñ bi feeña ko mooy ki nga xam ne su ne dëll rek nga gis jëmm ji rek mu fàttali la sëriñ kon am na ko taxawee ci sëriñam taxawaayu rajo su waxee nga fàttali ko sëriñ waaye soo yëree doo gis sëriñ am na koo xam ne dafa taxaw ci sëriñam taxawaayu jëmm su ne rek nga fàttali ko sëriñ ba waaye soo yëree sëriñ ba doo fa fekk waaye am na ku taxawee ci sëriñam taxawaayu télévision daf lay jox ko wax di nga dégg ko soo bëggee gis image bi ak jëmm ji ak na sëriñ ba meloon soo yëree taalibe bi rek gis ko ci biir taalibe ko ci benn jaamu yàlla wax jooju yasqutu zalika al kalaam ala hada wax jooju day euh, su soo ko gisee ko xam soo ko gisee da nga fàttali ku bàyyi su waxee da nga fàttali ku bàyyi soo ko yëree da nga fekk bàyyi gis ci ko yàlla bàyyi suñ kanam ànd wér sànq moo ngi wax borom xam-xam bu amul chiru maanaam amul chaairiyatu xam-xam bi ci gën a rafet mooy ku ànd ak wuy moom yàlla may na ko ko bi ma gënee nekk ndaw maa ngi dégg ay yu muy sat Cheikh Ibrahim Ñas bayt yu rafet eh, sama xel naqari moo tax mokkalu ma ko waaye suma su ma su ma jógee fii dinaa dinaa gisee moom pour lam woy ci xadara bi ci woyu rafet am na yoo xam ne maa ngi doon dégg oustaz sama xarit Lamine Kouta daan ko répété dañ bi ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla la yàlla yokk ñoo ngi nuyu dëkk bi fii damay wax dem buñ fi mën a jox nit balaa ngaa dugg tem bi war war nga wax ci xalifa bi ndax li yàlla def mu jëmbat ko fii ci dëkk ci jëm bu kawe ak mbaaxam ak yaatuwaayam ak bëgg doomu aadama lim def ci dëkk bi ku fi jël micro balaa ngaa dugg ci tem bu nekk rek war nga gërëm xalifa bi sant ko nuyu ko ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk wér ci barke alxuraan ñun yàlla dimbal nañu suñu xadara bi saa bu jullee timis danañ def toog ñaanal xalifa loolu alhamdulilah man na ay at léegi suma ko teewee ak suma ko teewu lépp yàlla may na ma loolu ngi continuer ndax def ma defal lu rëy loo xam ne mënuma ko mënuma koo fay nit nag su la defalee lu rëy loo ko mënul fayee fayee ko ñaan xalifa bi jikkoom yi soo ci doon wax man nga dem fii ba fajar doo ko jeexal ndax ci koy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu la si ki amul ne mbaax gi tabe gi lewet gi bëri yërmande gi xam-xam bi macha allah surtout tabe gi day joxe ba nga yërem ko alxalifa soo tukkeeg moom ba sax man jël naa ci ma macha allah melo googu te kenn mënul jël meloom yépp damay ànd ak taalibe suñ tukkee suñu ñibbi jox la suñ ne nii ma ne leen déet ci xalifa bi laa ko jàngee khalifa bi man moom ma eh, def million ci sama loxo ni ñaata ñaata jakka ñaata juma la tabax ngir yalla kese la ñaata radio lañ tuddi mu day jënd ay radio yu bëri ñëwé ma sha allah daayira yi jakka yi sha allah te xaaliss ko la koy jënde way su koy joxee ko joxee ngir yalla ñaata kër la tabax joxe ko ngir yalla ñaata billet avion la tak joxe ko ngir yalla ñaata doomu adama la yobbu makka ñaata oto la maye ci li ma xam sant yàlla soo doon wax tabeem da ngay fàttaliku la ak wis ci waxoon Baye Niass benn naar moo ngi dund ba léegi moo nga tënnu ak shot moo waxoon Baye Niass ka annaka xatbaanun alal maali kullama ata minhu tufnihi wala tatakassabu takawwanta min juudin wa majdin wa innani bi kullika ya bahra al ataaya la mu'jib ak tuush nii Mouhamad Abdoulaye moo nga tënnu ak shot moo waxoon Baye كأنك غضبان على المال لما أتى منه تفنيه ولا تتكسر فمن ليو على الفتكي جورك دنجي مري على البيت انكو يمري يكتب جمو جوكي سلوخو لن يو رنجا جوحفا ولا تتكسر بدو دنجي نرى من باي تكوان تيو يالي خلصاك من مجد من جود ومجد بسم الله أهلا وسهلا مرحبا يا شيخ باي باي باي شيخ أهلا تكوان من جود بسم الله أهلا وسهلا te kawwanta ak doos ni nee bàyyi te kawwanta yàlla def la sàkk min juudin ci tabe wa majdin ak teddaange inna ni man bi kullika yaa bahral ataaya la moo jëkk man mi de yàlla def na sa lépp def maa yéem yaa bahral ataaya yow mi nga xam ne yaay géeju tabe yaay géeju may man benn bés imagine naa may mayu tabek xalifa bi ndey jooram bi ndax li may gis muy joxe ndax nit dina ko jekk danga ko xam su tuddul waaye soo ànd ak moom tabe gën a xam ma xalaat ci tabe gi ma daal di way ñaari bayt inna nada law sawwaruhu ka haykalin كان الخليفة دون أي مزاحم عبد العجاب لدى السخاء وما دري جود كأحمد التجاني الأكرم إن الندى من تبع law sawwaruhu suñ ko portale woon ko haykalin tabe nekk jëmm boo mën a laal kon de kaanal xalifata ma ne nadaa bi haykal googu kaana al xalifa duna ay muzaahid kon soo ko laala rek xalifa bi ko fay fekk mooy sàmmane bi jaay tabe su suñ ko sàkko mu koo mën a laal soo koy laal muy xalifa abdal ujaaba la def saxaay feeñal na tabe feeñal na kéemtaan ci biir tabe wa maa turi man suma xam mu suñu xam jëw ku tabe ka ahmadina tijaani nag maa gis ku tabe ba yegg al xalifa ahmad tijaani lim def nii nag benn jikko la ci jikko yu rafet mooy delloo ñu kër matal kóllëre maanaam kóllëre ci jikkoom jikkoom bañ na ko ba moom fépp fu mu daan dal suñ tukki fépp su ñëwee àdduna te yàgg rek waaye foofu rek lay dal dafa bëri kersa yaatu tabe baax waaye am kóllëre tamit kóllëre nag ci muy gën a rafet la ko benn benn mag daanaka nettali mu ne eh, ñett bañ wàccee dañoo ànd ak ñett ci jamono bu waaye léegi mu ne ñett yi ba ñett ne alal alal bam mu wàccee dafa àndoon ak barke bu njëkk ba nit daan am tuuti ne def mu am barke ñëpp mën cee dund waaye mu ne suñ jamono gi tey nit day am lu bëri te du am barke mu ne bu njëkk ba xam-xam dafa wàcc ànd ak ragal yàlla waaye léegi néew na ngay gis borom xam-xam bu ragal yàlla mu ne bu njëkk ba mbokk dafa wàcc ànd ak kóllëre waaye fi mu ne nii mu ne mbokk bu ànd ak kóllëre jafe na alxalifa nag lii mu def bi nii day wane ne mbokk gi ngi ànd ak kóllëre yàlla defal na ko moom mu nekk ku am kóllëre yàlla na ko yàlla sàmm ci barki alquran kóllëre moom soo ci duggee da nga dem ba fàtte kóllëre sama walib aadiya man daan jàng ci ayamu jahiliyati islam day gudd lool waaye arab yi dañ daan damoo jikko yu rafet muhammad sallallahu wasallam na arab yi rafet ci ñaaw mu tere ñaaw yi ci rafet encore nden ko tamsiyel pour ñu mën koo rey moom yonent yàlla Muhammad ndax tamit matal kóllëre ci jikko yonent yàlla Muhammad saa sallam la bokk arab yi bu njëkk bi dañ daan ndamoo loolu ndax gis nañ e, taa'i yu benn taa'i yu ci bani tayin am na am na benn buur boo xam ne Nu'man la tudd Nu'man Nu'man daf dafa amoon ñaari bés yow mu nu'min wa yow mu buksin bésu xéewal ak bésu di jafe-jafe saa bu xëyee bésu xéewal bi su la gisee su njëkkee dajak yow su njëkkee dajak yow ci bésu xéewal bi dañ la may doo ñàkk yow say say ba ba nga génnaat waaye su xëyee bésu jafe-jafe gi dajak ci bésu jafe-jafeem yow ma bug si yi mu di génn rek dajak benn taa iyu taa iyu mooy ki nekk ci ba bokk ci giiru bani tayin mu ne ko tey sama bésu jafe-jafe la te yow laa njëkk a xamal ne dañ lay rey ko ah, man de ay njaboot yu sew laa bàyyi su doon sama sago nga may ma ma dem dénk ko ahlal muruati ma dénk leen ahlal muruati daal di dellu si waat mu ne kan moo lay warlu ne da kenn nekk fa ku dul sharik ibnu uday sharik ibnu uday xaritu buur bi la ñoom ñooy bokk di naanandoo sàngara kooku rek a fa nekk secrétaire buur bi mu xool sharik moom taa iyu bi kañ jàpp te war koo te mu ñaan buur bi na ko bàyyi mu dem ca njabootam dénk leen ahlul muru'ati ñëwaat buur bi ne ko ku lay garanti mu ne Sharik ibnu Udayin Sharik ibnu Udayin nag ndeysaan dafa tiit xam na ne Nu'maan lu mu wax daf koy def kii su demee su ñëwaatul moom dañ koy rey Sharik xool ko mu xool Sharik mu ne yaa Sharik ibnu Udayin ma min al mawti inhizaaz bal li atfaalin sigaarin qadimu tuhma ta'aam بين جوء وافتقار وسقام وانتزار يا أخا كل كريم أنت من قوم كرام يا أخا النعمان جد لي بضمان والتزام ولك الله بأني راجع إلى الزلام من يا شريك بن عدي يا شريك ما من الموت انهزام نكون لما ragal dee moo tax may wax na ma may ma بل لأطفال صغار أدم طغمة لما باي أي جبر كسو أم يسخن أنيتي لما بنغ باي مما دم تنيوم بين جوء وافتقار وانتظار وسقار بين جوء دنيو خيف وافتقار نيك وانتظار دي مخا كرمة اللوسي اندي دارا وسقار من عندك تيبر دنيو الله يا أخا كل كريم يوم بكو بيبكو باه بيبكو باه يا أخا كل كريم أنت من قوم كرام yow ku baax nga te xam naa fa nga dëkk tamit ñu baax lañ yaa axa nu'maan yow mbokk nu'maan mooy mbokk buur bi jut lii bi damaanin wal jizaam may ma damaan warlul ma nga bàyyi ma dem seeti samay njaboot ñëwaat walaka allahu bi anni raajiun qabla zalaam warlul naa la ca yàlla ne man danaa dellu balaa timis sharik ne demal warlul naa la même soo ñëwul demal buur bi ne ko su ñëwul dama lay rey de mu ne na dem macha allah eh, pa yu bi dem dénk njabootam eh, ahlal muruati daal di ñëwaat timis di waaj a jot rek mu ne sharik jógal timis a ngi waaj a jot te gisaguma sa waaj mu ne yi taxaw leen fii xoolal ma si jant bi di so yéen leen jaasi ji su sooyee rek te ñëw rek dagal leen ma bopp ba ñuy wax jant baa ngi soo am ñu seen ñu ne ah pa yu baa ngi ni ñëw wallahi ba mu buur bi ko ah ñëw nga mu ne waaw wala qad daat nii lil xilaafi ashirati fa adattu qawlahumu min al adlaali wala qad daat nii lil xilaafi ashirati ba ma demee sama mbokk yi newoon nañ bu ma ñëwaat naa toog waaye fa adattu qawlahumu min al adlaali ma jàpp seen kàddu bi réeraange rek ndax dafa am bakkan bu ma tayle fii mu ne nag yéen ñaar bu ngeen ma gën a gore kon jéggal naa eh, ñu mujj joxe misaal mata matal coloré ci paa waaye yonent yi ba ñëwee dañoo fàtte xaa iyu boobu ci matal kóllëre jikko yooyu nag képp ku baax da nga koy jikkowoo gis naa alxalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim kenn gënu ko matal jikko jooju wallahi borom kóllëre la su toogee tey bay delloo jukkal ay magam yu jigéen nga xam ne loolu kóllëre la waaye eh, néew na kuy toog toll fi mu di xalaat loolu waaye Baye def ko bëgg Oustaz Baye Mar moo ngi daan nettali sànq histoire bi li Baye mujjee ak moom kun awnan li axawayk kon bàyyi xamoon na ci moom lu bëri moo tax bàyyi feeñu ko ne ko baar yaa ngi bàyyi xel sa mag yu jigéen yàlla na ko yàlla bàyyi xel moom suñu tem bi nag dañ ma jox tem ñu ne tarbiyatul banaati inda Cheikh Ibrahim mooy tarbi yu jigéen ci xadara Cheikh Ibrahim ya ci université bàyyi Niass université bàyyi Niass lan la travail lan la liggéey ci yarub bàyyi ñes ci jigéen te jigéen alhamdulilah depuis njëlbéenu lislaam depuis ca jamono saxaaba yi jigéen yi daan nañ buuxante góor ñi di xëccoog ñoom maqaama yu kawe yi ba ci jamono taabiina yi ba ci alqurunul wusta nga dem ba ci jamono cheikhu tijaan ba ci jamono bàyyi ñes jamono goo toll rek am na ay góor yu takku di rëjële leen def góor yi ci maqaama yu kawe moo tax benn borom xam-xam def ne ar rijaalu qawwaamuna ala nisa góor ñi la favoriser ci kaw jigéen ñi benn borom xam-xam nee ne yàlla waxul azzukuru qawwaamuna ala al inaasi waxul azzukuru ñi ñi sol tubéy ñi sol tubéy te nekk góor comme góor nii rek waxul ñooñu ne qawwaamuna ñoom lañ favoriser alal alal inaasi ci ñiy woddu sër ndax jigéen lañ yàlla waxul loolu de وقل الذكور الذكور قوامون على النساء على الاناث وقل لول يعني الرجال غورني ديك رجوليه جيجين صاح من الرجال غورني موي ماناكو خيخ اك سا بوب باغا ييك سي درجه اي غورني دونت جيجين قوامون نيوم لا فابوريزي على النساء تي جيجين ني موي ني يات ياتارال با وات سي درجه اي جيجين دونت غور لاي باي فيني نكو بان من بقي بعد الفناء وسلك نهج رسول الحق والنفس ملك هذا هو الرجل انثى ام ذكر وسر للغير وبال وخطر اي لاج بكو شيخان لاج خينا تنن تي نيو اي بيتي جامانو صحابي كوملي عائشه كوملي ام سلمه كوملي ام مهجن كوملي نسيبه بنت كعب كوملي فاطمه بنت رسول الله ñoo ñu ci jamono yonenti bi la nga dem jadd ba ci jamono tabiina yi nga gis ku melni muazatu bint abdullah al adawiyya muazatu bint abdullah al adawiyya siram taarixam suñ ko waxtaanoon fii rek guddi gi dana jeex ku mel ni rabiatul adawiya moazatu bintu abdullahi al adawiya saydatuna aïchatu moo ko jàngal waaye toog na ñeen fukki at yoo xam ne xittuwul bëtam xool asamaan ngir rus yàlla netteel nañ ci moom ne ñeen fukki at lekkul bëccëg da doon woor rek ñeen fukki at nelewul guddi day jaamu yàlla rek ñeen fukki at xittuwul bëtam pour xool asamaan ngir rus yàlla moo ngi jëlee adab googu ci saydatuna aïchatu radiallahu anha رابيه الادويه بنت اسماعيل خا خني جام لا وون واي جامو يالا غام تان جامو يالا موتاخ جام سانغام بي دال مو غورل نال مو ديم با ييك تي فناو تي شهاده قلبيه بن غودي موي فك دنم دي واخ حق يالا دي واخ احبك حبين حب الهوى حبا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك اما سواك واما الذي انت اهل له فكشفك للوجب حتى اراك ولا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك موي وحق يالله تي غودي نيب باغي تيت من احبك حب بين يالله دما لا بغ نياري بغيل حب الهوى بغيل بو خامني طبيعي لا ناتريل لا نيو سي مان دما جود ريك بغ لا نيكول تكلف غي سي ولا دار نيكول مالا بغ بغ لو بغ لا دما خير ريك بغ لا يا ديف سي مان حب الهوى وحب لانك اهل لذاك ام بغي دو خامني دما ييو فك نا ييو دلا ورا بغ ما دال دي لا بغ أما الذي هو أنت أهل له بقل كيغا خمنا يو دنكو يلو لوي باي بي موي فكشفك للهجب حتى أراك موي نغا دند كيراي سما تكنتك يول فما جاكا لك يول فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك أمن سواك بقل كيغا خمنا يوم بقل طبيعية دما جد ريك فيك مان لي بقل لكي وانا موي فشغلي بذكرك أمن سواك وما تولو مان تدو نخ يونان من أحب شيئا أكثر ذكره وبقل دنكي بري لوكي تدو mu ne nag lii wane mbëggeel gi nga xam ne maa gis ne dañ laa war a bëgg ma bëgg la mooy dangaa huññi kiiraay dindi kiiraay sama diggante gi wax daa araak maa ngi jëm ak yow rabitul adawiya moomu jigéen la mais laaj nañ ko ci loo xam ci shaafa yi ci xam-xamam mu ne ahsibuhu rajulan yuhsinul wudua ahsibuhu rajulan mu ne shaafa yi yaakaar naa daal yuhsinul wudua mokkal na njàpp maanaam comme ni ñuy waxee xale bii de jàmbaar la nga ne waa mokkal na njàpp limaam shaafa mi nga xam ne fu ne wër na ko di wër xam di ut xam-xam ba am ko di wax sa adribu fi tuuli lbiladi wa ardiha atlubu ilman aw amutu gariba fa in talifat nafsi fa lillahi darruha wa in niltuhu kana rujuu qariba danaa wër penkook soow di ut xam-xam il faut ma am xam-xam wala sama bakkan de su nekkee ne am naa ko ñibbi gi dee yomb su ma ko amul ma dee ñu ne kii su deewul woon dana am xam-xam shafe yi mi nga xam ne borom xam-xam yi nee nañ amul kenn kuy jël big ولا خليمة تكوتي كيد إلا ولشافعي عليه من نبي شافعي أمنا تتيابا نخلم لقيا الدينك يلاك تبين جيجين جيجين جيجين أحسبه رجلا يحسن الوضوء كون سنلا وخي جيجين يجون جدون رجل جلو بورني كما قام يكوي وخولي نملني مؤازة بنت عبد الله الأدوية نملني رابعة بتي بما يكي جمعنا مولانا شيخ إبراهيم يس فيني باي جيجين جيجين نتي أقولم تجاخل أي غور كلمة للمو ko bëgg jotaay gi du yaatu pour loolu waaye demal ci téere ko tudd adwaarun fi zilli taxti fi taxte zilli saaxibil fayda bu cheikh mohamad abdullah adwaarun taxte zilli saaxibil fayda rijaalun bu adwaarun xëy na loolu la ma fàttewul tudd soo demee ci buntu nisaa un aarifaatun mongo da nga fa fekk ñu bëri ñu bëri ñoo xam ne lim na leen foofu te ñu génnee ci école Maolana Cheikh Ibrahim Niass man nag su ma ciy lim damay tàmbali ci benn jigéen bu tudd Mariam Bintu Tulba kooku moom ak Cheikhaane ñoo bokk benn baay te tamit nekkoon na soxna yi Maolana Cheikh Ibrahim Niass ku bàyyi jàkkaarloog ne ko anti Aïcha yi faqad qarrartu laki zalik yow yaay sama Aïcha signal naa la ne yow yaay sama Aïcha ni Aïcha meloon ci yoon ci yàlla Muhammad kenn ku nekk xam na ne Aïcha borom xam-xam la woon yeggoon na fa xam ne góor yu bëri yegguñu foofu ndax mokkal na deux deux cent dix hadis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam deux mille deux cent dix mooy ñaari junni hadis ak ñaari téeméer ak fukki hadis te xam nga fii ñun si mbooloo mi rek suñ ci bëggoon xool ku mokkal téeméeri hadis léegi dañu war bu sonn waaye jigéen jooju mokkal na ñaari junni hadis ak ñaari téeméer ak fukki hadis moo tax am na hadis donte daif lañ am ñu koy daif la usi usu nisba diinikum an haazihil humayra jëlee leen ngi seen ñàkk yonent bi mais euh, ñàkk baa ngi mel ni or guy daw ci kanamu rasulullah saa sallam affaire bi jaaxal Aïcha yonent bi gestu ko mu gis Aïcha ngi xulli ba ci mel ni ku jaaxle mu li ma bu hitti lan moo la mu ne ara arabaka ya rasulullahi yatasababu nuuran sa kanam laay xool di gis sa ñàkk baa ngi sotteeku leer dafa mel ni ay toq leer ñooy daw ci sa kanam wallaay la abu kabirin al husayri waxoon mbokkam su la gisoon dana xam ne yaa gën a yelloog la mu waxoon mbokkam mu ne ko lan la abu kabirin waxoon mbokkam mu ne ko def ko waxoon wa mubarrain min kulli gubbari haydatin wa fasadi murdiatin wa daa'in mu'dili wa ida nazarta ila asirrati wajhihi faraqat ka barqi al aaridi al mutahadidi mu ne abu kabirin moo waxoon mbokkam ma boobu daa taaru mbokkam bi daa rafet mu ne wa mubarrain yow yaay kiñ setal min kulli gubbari haydatin bépp salte mbërët deret ba fasaati murtiatin yow la yàlla musal ci mbonu ween bon ween gu bon mooy yaay ci bon ba fasaati murtiatin wa daa in mubdili yow la yàlla musal ci feebar buy lottal isa nazarta ila asirati waj ku xool ku xool sa kanam baraqat ka barqil aaridil mutahallil fekk day fekk sa kanam a ngi mellax comme ci asamaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko maa sururti min nii ka sururi mink lay musoo kon musuma kontaan maanaam sa kontaante bi nga kontaan ci man bi ma kontaan ci yow ko ëpp kon Aysatu jigéen bu kawe la woon bu màgg la woon su yonent bi demee bay ñoo nañ suñ genn wàll diine ci soxna si xamal ne ku màgg la woon daañu rëri ci ci sufuuf di jàll kon tilka rajulatun comme ni ngay waxee rajulun noonu ngay waxee rajulatun ci arab ndax rujuliya nekk góor ci jamono googu maanaam ci ci langue arabe firiwul ne jigéen rek moo koy féetewul la góor góor dana nekk góor jigéen dana nekk jigéen mais jigéen nag dana nekk jigéen góor tamit dana nekk góor mais góor dana nekk jigéen jigéen tamit dana nekk góor xam ndax dégg ngeen li ma bëgg a wax mooy mooy ndekete humul rijaalu fa gablun an yuqaala liman lam yattasif bi maani wasfihim rajulu boykat bi leen ne dafa wax ay melo yu kawe mu ne humul rijal ñu mel nii ñoom la ñuy wax ay góor donte jigéen lañ humul rijaalu wa gablun an yuqaala liman lam yattasif bi maani wasfihim rajulu képp koo xam góor nga te yoro melo yu yi yor nax nañ la kon ndekete e, rujuliya maqaamale jigéen dina ko am góor dina ko am Mariam bintu Tulbi mii digganteem ak Baye Niass la fa jaar te balaa Baye Niass ñoom misri yi lañ wax ci moom ummuna Mariamu shaa fadluha a ilmi wal irfani misri xam ngeen misri misri mooy kooku di bàyyi di wax saa nii wujudi sama ñaareelu am-am misri borom maa âge ba mu yegg ci xam-xamu maarifa billah su demee bay junj jigéen ji soxna si di wax wa ummuna mariamu suñ yaay mariam ndax moom soxnay bàyyi la woon moo tax mu ne wa ummuna mariamu shaa fadluha fi l ilmi wal irfaani qalla mislu fi l ilmi ci xam-xam wal irfaani ak maarifa billahi ñaar yépp la soxna si dajale si ba aduna génne dafa am benn wëykat bu mën a wëy gisuma ci biir maxdamulaan ku mu yemal ci mën a wëy kooku mooy cheikh misri doomu al misri la rakk Haj misri Haj misri miin ngeen ko waaye moom day làqat moom cheikh misri Haj misri moom mën na wëy waaye bariwul lu muy wëy waaye kooku rakam jooju di cheikh misri daa man wëy ñu koy docteur la ñu koy tuddee tabibu shuara wa tabibu shuara yi mooy docteur woykat yi ak wa shaairul atibaa woykatu docteur yi ci biir docteur yi amul ku mën a woy ba yegg ko moom ci biir woykat yi amul ku mel ni moom ci faj moo tax ñu tudde ko tabibu shuara yi wa shaairul atibaa gisuma ci àdduna foofu jamaatu mu daan ku ko dàq woy soxna si ba mu gaañoo woy na ko xasida bu rafet a rafet moo ngi ciy wax man lii biha fi jazbiha wa sulukiha falaqad taxallat bil ula wa tajallati من لي بها صديقة صوفية يا درة بيداء كانت التي فهي التي نالت معارف لم تنل وحوت مقامات الرجال الجلة وهي التي رقت وراق حديثها وهي التي وهي التي وهي التي نالت به قربا وقربا ظاهرا فبدرتين فريدتين تحلتي من سخنسي من من لي بها في جذبها فالله ام كم من لي سخنا في جذبها في جذبهم بم ام تيال ام جي باي نينا من سما جذب اك سما سلوك دوكو جيس فن هل ابصر عيناك مثل يا سائر اس كي سنياري بوت مسنا جيس كم من لي من لي دوخ تي كوسو سلوكي سما سلوك و جذبي اك سما جذب والعلوم اك سما خم كم يكو يدو دي بل جذب باي نيس بي امول فن لا من السابقين ولا من المتاخرين سلوك باي نيس بي امول فن دي تي ولي يالله جيكي دي تي bàyyi ñes moo bind lettre Seyd Ali Cissé nel waxal taalibe yi ñu sant yàlla maanaa wa tubayinu lahum maa xassahum allahu maa lam yasuqa xubaarahu saairun ila allahi qablahum wax leen wa tubayinu lahum nee neen bàyyi ñes moo ne waxal taalibe yi nañ sant yàlla te leeralal leen wa tubayinu lahum leeralal leen mimma xassahum allah li leen yàlla jagleel loo xam ne yàlla moo ko jox taalibaay keneen ku dul taalibaay amu ko bàyyi nee ne loolu noonu leen yàlla jagleel maa lam yashuqqa xubaarahu saa'irun ilallah loo xam ne amul ku sa jóg di wëndeelu jëm ca yàlla ba yegg fa sama taalibe yegg loolu bàyyi ñes na ko su bàyyi ñes waxee amul benn walu yàlla ci ñu njëkk ñi ñu njëkk ñi suñu leen waxee yaakaar naa suñu waxee ñu njëkk ñi da nga wax ibn arabil xaatami ci ñu njëkk ñi la bokk ibn arabil xaatami lam am ci maarifa billahi macha allah soo xoolee borom taiyatu sulukil kubra omar ibn al farid ñoom limaamul xuseyri ñoom abul hasan yi chazeli ngand yi nga xam ne kenn ku nekk suy waxtaan ci maarifa billahi su doon fas bi dàq sax da ngay taxaw ko ndax lam am ci maarifa billahi li ko yàlla may ci xam-xam Baay Ñas nee na yéen ngeen a war a sant yàlla ba le yàlla jaglelee loo xam ne lam yashqa gubaarahu saairun ila allahi qablahu maanaa amul kenn ku jóg jëm ca yàlla xotti poussière sama taalibe yi ak lañ am ci yàlla eh, soxna si Mariam bintu Kul Bichri def ne malli biha fi jazbiha wa sulukiha fan laay amee ku mel ni soxna si ci jazbu ca yàlla bàyyi nim firee jazbu wala yàlla yi ko jiitu daan nañ ko firi waaye nam ko firee firi goo xam ne yow soo nekkee aarif billahi da nga ko dégg na nga ko war a déggee su nekkee ne yow da ngaa nekk sax ci waajil hijaab yi mooy déebu kiiraay la tiba lil ayshi ma al hijaabi inna al hijaaba hammatul azabi wa bi zawalihi zawalu nakadi tuuba liman shahada sirral ahadi soo nekkee ci déegub hijaab waaye su firee jas bu sax yow da ngay da ngay bëgg sax am jas bu ci yàlla doonte yaa ngi koy wét mus naa man firil benn daaira ay mbokk murit lañ foofu ci cité port ma leen daan firil téere si Ahmad Bambay ma yegg benn bis ak ñoom waxtaanal leen luy jas bu ma wax li Cheikh Tidiane wax ci jas bu ixtitaaqullahi al abda min waadi tafriqat ila bahri al jami ma yàlla këf la fa nga daan gis yu bëri sànni la koo xam ne dootoo gis benn mbir mooy jëmmug yàlla gi ma wax ba wax bàyyi لم وقت جزم بين اعلم ان المرء يدرك في التوحيد مقاما يظنه من لا فهم له مجنونا وما هو بمجنون ويتوهم من لا فهم له انه زنديق وما هو الا سكين ندنا يك توحيد تويت يالا مقام كو خامل كو امول دك دك دي ياكان كي دا فا دوف باي فك دوف يا كومبراندو لي لي شيخ علي دي واخ يظنون بالمجذوب في الله جنه waqad kaana sakraanan bi xamril jalalati na dañuy yaakaar bil majzubi fillahi ku am jazbu ci yàlla jeex ci yàlla réer ci yàlla ba yëgatul boppam dañuy yaakaar ci moom junnatan maanaa euh, maanaa ndoxeel waqad kaana sakraanan bi xamril jalalati boobu dafa man ci sàngara yàlla bi yaa xam waaye ñes ne ne nit dina yegg ci tawhid maqaama boo xam ne yazunnuhu man la zawqa lahu ku amul mos ci yàlla dana yaakaar ne waa ji dafa dof wa المتين باين دهول ده ديدت خم غلو تحت دهول الإمام أحمد البدوي موتان وقت مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد مجانين قايدين نيرن جنيو دف غور يالله يك شايا الله فن يك نفا يقول نيرن جنيو مجانين من إلا أن سر جنون واي سن سكرن دفل عزيز دا تد شايا الله على أبوابه يسجد الأقل خل سنية بتسين بنت دفل فلا يخل سنية xam nga kay ndofeel moo warun sujudal xel waaye xel ñëw ba ci buntu ndofeel di sujud mooy nit ki daa yegg ci yàlla bu kawe yow yé réer nga réeree maqaama gi yaakaar ne moom daa def waaye def foofu bàyyi nee na waaye tawahamu man laa fahma lahu bu amul dégg-dégg ci yàlla yaa yaakaar ne annahu zindiqun ci kàccor la wa ma huwa illa siddiqun ki nekkul lu dul ku dégg ci yàlla ba ma ko firee ndeysaan président daayira bi mag la woon ndeysaan dégg ndeysaan mu mu mu def ni bopp bi ne xëcc ma jës bu ma jës bu ma xëcc ma mën naa ko xëcc pour mu yegg ci ci maxaama boobu kon ndekete ñëpp ñoo bëgg a yegg foofu waaye ñu gis ah, macha allah <laughs> ñëpp ñoo bëgg a yegg ci maxaama googu eh, xëy na ku fa yegg wala koo xam ne yaa ngi jeex bunt bi gisagoo ko képp koo gisul yàlla ko yàlla woon waaye am na koo xam ne jigéen yaa ngi dund ci yàlla bu kawe te ay góor yegguñu ci usrul usri ba kii soxna si ca la bopp man lii biha fi jazbiha wa sulukiha falaqad taxallat bil ula wa tajallati ne taaroona kowe ca yàlla wata hal wata jëllati feeñeena kowe ca yàlla man lii biha siddiqatan suufiyatan fan laay amee ku mel ni moom siddiqatan ci dëggu ci yàlla suufiyatan ak nekk mutasawif ci ñetti xaraf yooyu ñuy wax suufi yu ñetti xaraf la saad bi saadu safa i waaw bi di waawul wafaa i faa bi di faawul fanaa i yaa bi di yaa yaqin am na ku doon weddi tasawufu ca màkk sama sëriñ di wax ak moom ne ko ah قمك يانجي بيت التسوق هناك أمنا شهادة قيمة بأنك ما صفيت وما وفيت وما فنيت وليس لك أي نصيب من اليقين أمنا يو صفيت سلو يلا ستو سادو صوفي وما وفيت متلو كل رسالة ديجنتك سبرم نحن خمقول يلا من أقوم متل كل رسالة ديجنتك سبرم وما فنيت جيخكو نحن يقول يلا من جيخ يلا وليس لك أي نصيب من اليقين يا بي يا اليقين لما ينقى أم تدقو أم سيقفيت يلا mané ne comme que xamagoo yàlla yaa ngi weddi tasawuf am naa ne amo wafa amoo wafaaw amoo fanaaw te wa laysa laka ayu nasiba min al yaqin amo ben cër yaqin ma Cheikh Abdoulaye ja moko ko waxoon waaja sheikhani cheikhaani nee na isama al yaqinu laazama qalban jaanabat shukuk wal awhaam gis gis demee ba yaqin dugg ci xolam ni tarax ci xolam mané koku kooku jaanabat shukuk wal awham wahmu ak chakk yëpp da koy sori motax ku xam baye degg dëgg-dëgg ku yegg ci baye ba baye ñamal la muy ñamal góor yàlla yi so xolé àndoon ak Baye Baye ci lettre boobu ma tàmbali woon nii di wax Baye ngi ciy wax ne fexe leen eh, roy ña leen jiitu woon ci xadara bi ña woon eh, ña woon ci xadara kenn ku nekk rek darsu nga moo xam jigéen nga ko kenn ku nekk école nga kenn ku nekk université nga soo toppee ci moom da nga jàngee ci moom te mbir mi day des barke yàlla rus na di ko jëlee fam ko defoon soo gisee tey ñuy dem Nigéria sans demee yokk bàyyi ñes bu bees boo gisul woon walaay jar na nga sol dàll weñ dox ko ba nga xoosu pour nga yegg moo tax daay di wax nañ xool ñu ñu jiitu woon danañ jëlee ci ñoom leçon te dinañ yokk soxna si ñu jiitu woon mu ne fax yëllati naalat maarifa lam tunal bayt bi nag moo tax sax ma indi histoire soxna si ndax fax yëllati mooy soxna soo xam ne naalat maarifa lam ñaari wali yu kenn ku nekk al arab la tudd ñaanal ko ba mu amee doom mu jël doom tuddee ko al arab mooy ñaari wali yàlla yooyu al arab ibn sa'i moomu wali yàlla gu mag ko borom buqiyatul mustafid su nekkul woon moom seydul arab ibn sa'i deful dara lu dul moo taalif buqiyatul mustafid doy na ko nekk ngan ci biir tariqa tijani benn bés moom seydul arab def ne al ataya ramzun li tijaniyati al attaaya mu ne attaaya gi ñuy def ni ramzun li tija day junj tijaan yi xam naa xëy na ñetti baraade yi ñuy xel li lëwal déedéem tubaadem day xaw a mel ni astaghfirullah ak julli ci yonent bi ak laa ilaha laa ilaha illallah mooy istigfaar bi ak salaatu ala nabi ak haylala bi mooy istigfaar mooy na ngay setee ci bàkkaar après nga daal di solu salaatu fati daal di def te jëlli ci laa ilaha illallah di alifu ta xalli miim laamu te xalli ak miimu te jëlli mu ne attaaya daal day junj tijaan yi bam ko waxe baye ngi tok soxna saa ngi toog soxna sene indi adaq minha amna lu gën sew wax ji waj li waj wax baye ne ko xaatima indi indi li nga yor mune waji ne al waraq soxna soxna sene al waraq ramzun ila al muhammadiya moy warga bi warga bi day junj maqama yon ci yàlla muhammad muhammadiya mu wa sukkaru ramzun ila al mu mune sukkar bi day junj maqama shi ahmad al tijani fam tazaja soxna sey wax de mu fam tazaja ñu daal di jaxase nak warga bi sukar bi fa kaanati natijatu hiya mashrabuna lu ma wax mashrabuna me mashrabana la yo ma ngi wax ak nuhati mune fam tazaja ñu jaxase sukar bi ak warga bi fa kaanati natijatu résultat bi ñëw ñu ko lan la mune fa kaanati hiya mashrabana mooy suñ kay bi toog bay ñes ne bay ne haza adaqu haza adaqu haza adaqu haza adaqu min alladhi lil arabi min maryam min khaqat rijal al arabi هذا ادق من الذي للعربي هذا وقت جي جينا كو واي ادق مو جينا رافت مو جينا سو من الذي للعربي وقت جي جولي كو وان سي سيدنا عربي بن سعد عربي بو نيك بي بور جيناس بي مانا باخ عربي بو نيك بي اك بو موج بي دو بن ndax su nekkon benn firi ginaas bi day yàqu ndax ginaas ñetti façon la ginaas tam ak mu sajal ak naqis mais bii ginaas tam la ulama ul balaa dañoo jël ginaas xaaj ko ñetti xaaj جناس تام وجناس ناقص وجناس مزين مي سخنا باي لي بخني هذا ادق من الذي للعربي من مريم فاقت رجال العربي wax ji rafet na lool moo gën a rafet nga jëlee ko woon ci sayyidul arabi ibnu sa'i wax ji fan la jóge moo ngi jógee ko min mariamin ci soxna si tudd mariam ma nga xam ne faaqat raw na rijal al arabi góoru arab yi arab yépp soxna si moo leen raw waxatuma la nag ajaam yi kon ndekete soxna si soxna la ci fan la génnee ci université bu Baye mais kéemtaan la ci xam-xam benn bés woy na benn woy Baye def ko ne anne la ki haza ya mariam anne la ki haza def ne madinatun ussisat bi cheikhi tasisa la garaba anna aliyan baabahu siisa dafa xool Medina Baye rek ak ni Medina mel mu ne madinatun Medina goo xam ne ussisat bi cheikhi tasisa dañ koo fondé ci Cheikh Ibrahim Niass Medina goo xam ne fondement bi mooy Baye la gharwa anna aliyan babahu siisa sikki amul ne aliyu babahu ɗi bontu hadara ki siisa ñine fiilun mabniu lil majhuli ey siisa ɓe mana usliha ndax saasa moy aslaha siisa e la gharwa annahu yani ali usliha min tarafi cheikh ibrahim ñasadillah ak loolu yëpp su la neexee nga jël siisa bi tamit def ko muy sant la gharwa anna aliyan bab maanaa bunt bi daal sikki amul ne moom mooy seydi ali siise mañ defar jëlee ko ci maolana cheikh ibrahim ñas bi mu woyee bayt bi madinatun ussisat bi cheikhi tasisa la xarwa ann aliyan baabahu siisa bàyyi def ko ne yaa mariamu annee laki haza mariam foo jëlee lii ndax bàyyi tamit ta def ko neex bàyyi dafa mokkal alquran te Zakaria moo ngi daan wax ak mariam ndax saa bu ñëwee foofu jamono noor fekk fa meññetug nawet su ñëwee jamono nawet fekk fa meññetug noor te kenn du fa dugg ca mariam kenn du fa dugg moom Zakaria mu laaj ko yow mariam annee laki haza foo jëlee lii Mariam ne ko huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab li ci yàlla la jógee yàllaay wërsëgal ku ko neex inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab nukta boobu la bàyyi jël noonu wax ak Mariam mu ne Mariam koo jëlee lii Mariam ne ko huwa min indillah Mariam soxna si ne ko ci yàlla la jógee inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab soxna si wa hawat maqaamaati rijaali illati li ki koy wax Cheikh Misri la kii ci góor ñi la bokk borom xam-xam la bok ci aarifina billahi la bok cheikh misri bi ma sha allah so demé ma fa mu nan nga lacc kan moy cheikh misri dañ la wax su su woyé woy jubale ko ci nit ngay xamné ko ne kooku la wax waxuma lak su ko seedale sédé yi mel ni mu ne wax yelleti raqat wa raq wax yelleti raqat wa raqa hadisuha moom mooy ko xamné sewna sew ca yàlla mana amna ay raqaa ik ca yàlla wa raqa hadisuha waxtaanam ci yàlla tamit rafet lol wax yelleti wax yelleti wax yelleti mu ne soxna si daal moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne pour nga xam ne lu ne la moom soxna si mu bëgg ñoo wax nag soxna ak bàyyi la mu ne am na ñaari jege ci Mawlana Cheikh Ibrahim naalat bihi qurban wa qurban zahiran am na jege Baye Ñas ndax taalee Baye la waaye wa qurban zahiran ci wàllu zahir tamit yàlla may na ko mu nekk soxna ak Mawlana Cheikh Ibrahim fa bi durratayni faridatayni tajallati ci ñaari or yooyu beddeeku yi mu la feeñee moom soxna si nga xam ne mooy Mariam bintu Tul ñi bàyyi yaroon kenn ku nekk rek mën na conférence wala sax ëpp na ko sax waaye xanaa tënk rek soo xoolee sa kii soxna si nii ñuy waxtaan ni Mariam bintu Tul moo suñ la waxee moom ak Cheikhaani ñoo bokk baay da nga xam ne kii lu mu am yëpp daanaka tuuti na par rapport rek gis nga Cheikhaani la ko yàlla may ci tawfiq ba moom la ñuy tuddee xasaanul fayda faydu bi xam nga tariqa bi dafa am xasaan ñuy wax bëdd mooy xasaanu ak tariqa ci moo dàq woy ci tariqa bi waaye nag waji ni di di mom lay tuddé ñuy al xassaanu euh soxna si ak cheikhaani ñoo bokk benn benn euh soxna si euh ko xolé da nga xamné bay yi def ñu bugg jàngal suñ ko jëlé yar ko nañ ko wara yaré ak fañ ko wara yaré bepp maqama guy kii jéggi rek jigéen bi mën na kaa jéggi lu dul maqaama yi nga xam ne istisna iyaat la nga xam ne góor yàlla yi maanaam wax nañ ne foofu jigéen du fa yekk comme ni ngeen xamee gi la ci cosaan ci wàllu zahir sax jigéen du mën a jiite euh, julli jigéen du mën a nekk yonant bi aarifina billahi tamit ne jigéen tamit du yéeg maqaama xutbaaniya ñu ne lu dul kenn mooy saydatuna fatimatu mi nga xam ne doy na dars jigéen yu kawe ya nga xam ne dañ leen a yar waaye nag ñun suñu waxtaan tey mooy jigéen yi nga xam ne dañ leen a yar ci Cheikh Ibrahim Niass ndax su nekkee ne danga tàmbali jigéen ya baaxoon te ñu yaroon leen danga jeexal guddi gi ndax bëri nañ lool Fatimatu Nisaburiya benn jigéen la boo xam ne yéen a ngi dégg Zunnunil Misri Zunnunil Misri benn wëlu yàlla la benn borom xam-xam la nekkoon Égypte benn aarif billahi la boo xam ne nee nañ jël na fatiha di ko firi jël mm, eh, baul basmala bi bii bismillahi bii la tomb bi mu def ci cent vingt neuf jotaay téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti jotaay def na ko ci téeméer téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti jotaay zunnunil misri def na ko ci firi baaul basmalati zunnu zunnunil misri moomu bokk na ci ñi ko yar mooy fatimatu nisa buriya fatimatu nisa buriya borom borom xam-xam la waliyu la macha allah moom tamit histoire am suñ ko doon waxtaan fii du jeex doy na ko rek ñu ne moo yar moo moo yar zunnunil misri zunnunil misri nee ne moom benn bés dugg na ci àll goo xam ne mën nga dox ñetti fan doo gis nit mu jékki-jékki benn jigéen tëll ci kanamam nga xam ne ndekete góor yi daan tambaabalu ci àll bi di jaamu yàlla sol seen der yooyu ngir bëgg bëgg yàlla comme na doon ñoom eh, xal eh, xalaaj doon defee comme na ko ñoom xuseer daan defee mutasawifine yi yañ daan tuddee suufiye yi léeg-léeg kàddu gi nee nañ dañ daan faral di sol der waaye kàddu gi gën a siiw ne firiwul ne dañ leen di tuddee suufiye ndax dañ doon sol suuf ndax laysa tasawufu lubsa suufi tarqa'uhu wala bukaa'uka in ganna almugannuuna wala sayaahin wala raqsin wala tarabin wala taxaashin ka an qad sirta majnuuna bal tasawufu an tasfuwa bila kadarin wa tatbaa alxaqa walqur'aana waddiina ndekete soxna yi tamit daan nañ sol seen der yi comme ni ko daan góor yi di sole ñuy wëri yàlla comme ni ko daan góor yi di waree wëree zunnunil misri ne maa ngi ci àll goo xam ne mën naa dox ñetti fante du ma gis nit ma jékki-jékki benn jigéen tëll sama kanam ma tiit ma ne kii jinne la wala nit la ah ma ne ko min ayna anti fan nga jógee mu ne min qawmin tatajafa junubuhum anil madajii yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan jigéen ngay wax de mu ne ko foo jóge ci àll googu jégi maa ngi jóge ci ñoo xam ne guddi su jotee dañuy teppi seen yaram yi ci matelas yu nooy yi di déeyeeg seen boroom xaw fan ngir ragal yàlla wa ak ngir xemem ci yàlla mu ne mu jaaxle nag mu ne ah gis naa mbir àll kertene gii nga xam ne mën ngaa dox ay fan doo gis nit gis jigéen àndul lekk àndul ak naan waaye moom rek ak deram ma laaj ko fan nga jóge mu ne ma maa ngi jóge ci qawmin tatajaafaa junubu anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa na muneko ila ayna anti kon foo jëm muneko muneko ila qaumin la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah ma ngi jëm ca gaay yo xam ne du yag mukk ba commerce jaar sen ak ku yalla mana alal ak commerce njaay ak njënd du yag mukk ba jaar sen seen ak seen borom rek mu ne soxna si si fihim li nettali ma ñooñu nan lañ mel ñooñu nga wax noonu ñooy ñan wax ma ñooy ñan soxna ci ne قوم همومهم بالله قد علقت فيا لهم همم تسمو الى الاحد ومطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد السمد قوم اي نيت لا نيو خامني همومهم بالله قد علقت سين يتي دا اجو سي يالا امو ني يتي سي ادنا واي سين يتي ييب دنجكو ويك سي يالا فيا لهم همم تسمو الى الاحد اسكي ما يمو سي يتي يو خامني ييكتي كو جيم سي يالا واي دي سي ادنا matlabul qawmi mu ne gaa ñooñu seen càkkutéef mawlaahum mooy yàlla yàlla rek la ñuy ut utuñu dara lu dul yàlla usayidum seen sang rek la ñuy ut mooy yàlla adduna bi la muy yaatu yaatu amuñu ci benn càkkutéef lu dul yàlla ak bëgg yàlla rek bu fàttali ma la rabbaani waxoon dañoo laaj rabbaani lan ga bëgg ci adduna mu ne wa umniyatu rabbaani maa kaana kaainan mahabbatu ibrahima wantahatil muna wa umniyatu wa umniyatu rabbaani mu ne rabbaani di gis moo jàngal doomu baay yu bëri wa umniyatu rabbaani man sama mébét man rabbaani ak xam-xam gi wilaaya gi maarifa gi quraan gi loolu yépp rabbaani la bëgg ci àdduna mu ne maa kaana kainan man fekk rabbaani gi nekk nit li mu bëgg lenn la rek mooy mahabbatu ibrahima bëgg baay ñas wante haatil mu naa mu ne sama mébét yépp jeex na su ma amee bëgg baay rek lépp jeex man kon def dama leen di fàttali nag guddi gi guddi sëriñ gi la mooy cheikh makki ñun dañoo eh, dañoo ne <laughs> nekk fii hmm, dañoo nekk fii di di xaarandi rek waaye naka jekk eh, guddi gi guddeem la waaw waaw <laughs> waaw ñoo ngi noonu ci ñi bàyyi yar ñu continuer Seyda Ruqiya mi nga xam ne eh, moo jur ki doon def conférence bi sànq Oustaz Babacar Oustaz Babacar mi ngeen gis nii man de doy na ma ci xam-xamam doy na ma ci jikkoom te man naa teg sama loxo ci kaamil tamit ne waliyu yàlla la ndax tukki naa ak moom ànd ak moom man yàlla dimbal na ma ci pay bi yu bari tukki naa ak ñoom te nit ki naka jekk balaa ngaa mën a seede ci ñoom moom lu bari nga tukkeeg moom bàyyi ñes nee ne na bàyyi ñes nee ne tuurafu xaalu naas eh, fi l asfaari ne soo bëggee xam xaalu nit naka jekk tukki leen ci nga koy xam eh, moom def téeréem bi man lima ma préparé woon pour conférence bi parce que man déggante wu moo nag ña ma doon wax dama yaakaaroon ne ñu ne naa waxtaan ci ñeenti soxna yooyu te ndekete ñeenti soxna yooyu moom moo war a waxtaan ci ñoom man li li ma war a waxtaan mooy yarub Baay Ñas ci jigéen ñi léegi man bañ ma joxee tàmbale téeréem bi laa jël moom Oustaz Babacar alfaydatu bayna taxadiyaatil maadi wa afaqil mustaqbal li yàlla di def man sax moom mooy sama marja man Oustaz Babacar bi may dem France di def conférence boobu di Oustaz Barham Diop daan def foofu euh, dem nekkoon ci ay tukki sonn lool ñëw ñu woo ma wax ma ko ma war a dem te préparé wu ma dara ma laaj leen thème bi ñu ne ma ci salaam la ñuy waxtaan la paix waaye moom laa woo mu yónnee ma ci ay macha allah wasaay bi am solo bi ma demee yooyu laa fa waxtaan bii tamit bi ma waxee thème bi ma ne ko ah euh, sëñ bi xawwil euh, ni ila masdari ma téeréem bi alfaydatu bayna taxadiyatil maadi wa afaqil mustaqbal falaa bindoon euh, yama war a waxtaan par yàlla def kayit baa nga ma bàyyi Dakar téere bi ci boppam kayit baa ngi ci biir téere bi téere bi ak kayit bi yëpp te dama xool téere bi amoon naa ko amut xaw ma kan laa ko kan laa ko abal ma woo benn waay xam naa ne yor na téere bi ma ne ko yor nga ko mu ne ma yor naa ko nangam lañ koy jaayee ma ne ko dimbale ma ci téere bi nga ñëw danaa fi bàyyi koo xam ne soo ñëwee mu jox la loolu yow laa bàyyee woon xaalis bi moo ngi nii waa ji ñëw indil ma téere bi ci diir bu gàtt ma copier ci la ma ci doon copier jël kayit bi dugal ci téere bi danañ ko indaale yàlla def tamit ndekete axiran loolu waxtaanam la moom te lim ci sotti fii <laughs> mu ne suñ sëriñ di Maulana Cheikh Ibrahim waxoon na la ca dënn bi moom moo ëpp la ca téere bi naka jekk moo macha allah ñu mel ni rek lañ ciy roy alhamdulilah euh, oustaz Babacar lim fi wax maa ngi maa ngi den rek euh, Cheikh Ben Omar Euh, yàlla ko yàlla wattu doomu Seyda Mariam ñas bi oustaz Babacar pare ci waxtaan xam nga moom te ko wax ci turu ña nga xam ne ñoom lañ teralee euh, euh, ngoon gi waaye def ne lii jarul sax ma ciy teg benn baat loolu la wax moom waaye mënul woon ñàkk wax nga gis oustaz Babacar moom ak ni mel ci xam-xamam macha allah te xam nga ñi dundoon jamono bàyyi sax asib tuut fekkee ci bàyyi tuut te ñi bind di tënk te nekk ay borom xam-xam dañoo bareetul macha allah comme oustaz Baye ak ñoom Oustaz Babacar yu jar a ñaanal lañ soxna si nga xam ne mooy Seyda Ruqiya bàyyi yar ko macha allah mu nekk aalimatu mu nekk muallifatu di taalifkatu téere ndax bokk na ci téere yi ma téere yi mu taalif dama jëlee ko ci alfaydatu bayna tahaddiyati almaadi wa afaqi almustaqbal mooy tanbihu lbinti almuslimati fi diini walxayaat moo ngi yee doomu jullit bi jullit bu jigéen bi ci wàllu diine ak ci wàllu dund téere la ko am solo mu defaraat beneen téere tuddee ko xazul marati fi lislaam cërub jigéen ci lislaam mu defaraat beneen téere tuddee ko taysiru fahmi diin li awlaadi al ifriqiyina min banina wa banaat li awlaadi al li awlaadi al ifriqiyina loolu la ko bindee ifriqiyina yi kon mudaaf la mudaafun ilayhi la awlaad mudaaf la ifriqiyina mudaaf ilayhi nekkul naat ak man ut li awlaadi al ifriqiyina min banina wa banaatin lii loolu oustaz Babacar di nettali ba ko Jim Carter invité première fois bi fekkee wu ma ko mais deuxième fois bi man ak xalifa bi ñoo ànd ak Pape Macky euh, Ghana ak moom Seyda Rukiya moo nga ca woon Jim euh, ñëwul woon jour boobu waaye ka ko ka ko a foofu ancien président États-Unis ka ko teewaloon foofu ñëw nañ nuyu si xalifa bi ne bëgg nañ mu ñëw ubbi leen jotaay xoola rek euh, ñoom ay tubaab lañ macha allah waaye gis nañ xalifa bi xam nañ ne kii nitu yàlla la invité nañ ko pour mu ubbi leen jotaay yi balaa ñoo tàmbali association Jim Carter bi macha allah xam diine yitteelu leen ñoom la ñuy dox ñoo nga cay dox mooy lan jigéen ak xale ba sax nee nañ xalifa bi dañoo bëgg nga bindal ñu gisinu lislaam ci diine ak xale ba xalifa bind ci discours bu am solo eh, ci gisinu lislaam eh, ci eh, xale ak jigéen ñu jël ko dugal ko seen archive soo demee ci seen archive yi gis macha allah waxu xalifa bu am solo bu am solo ko Eh, Seyda eh, Ruqiya mi baay tuddee na ko fataatul xayyi fataatul xayyi fataat su nekkee ne yaa ngi firi baatu fataat ci góoru yàlla yi su nekkee ne xam nga eh, langage góoru yàlla yi fataat sax alxuraan sax innahum fityatun ba baay ñëwee sax fekk leen ñoo ngi toog man antum yéenay ñan moom soxna si moo ko tontu ne naanu fityatun wa fatayaat wala soxna si la ndekete la ko baay tuddee fataat moom xam na ko te moo ngi koy gëm ndeke tilka waaqiatun muaasha waaqiatun mahsuusa ndeke wa qadiyatun bayna yadayha malmuusa ñëw laa gën man antum mu ne nahnu fityatun wa fatayaat te boobu ñëpp dañoo noppi moom soxna si mu jóg tontu bàyyi ñes ci langue arabe te gis ngeen wax arabe te doo yàq dafa jafe waxuma la nag nga koy wëy soxna si day taalif te day wëy man gis déggoon naa ci làmmeñu Cheikh Abdoulaye sama sëriñ ay abyaat yoo xam ne benn munkir la woon ka doon weddi bàyyi سيدة رقية بند دي كوكو يوني أين الجبال الذي قد كان يشتمنا محارب الشيخ من هارون على النار ولمه هالكا من شتم ذي كرم يا ويل بعد أف أبد ديناري وما رأيت به شيئا يشين سوى أن كان ينبوء أسرار وأنوار تزمه حسدا لكونه مددا أو أن وكرها وساقي كأس أسرار سيدة, سيدة رقية مويويلة ما شاء الله أين الجبان الذي قد كان يستمنا مستفعل فاعل مستفعل فاعل ci baharul basit waykat yi xam nañ macha allah baharul basit ni mu neexee ay nal jabaanu li ana tappet ga nga xam ne qad kaana yashtumuna kii la taxawoon démb di ñu ŋàññi muhaaribu cheikh kii xeex ak si amara tijaani kii xeex ak bàyyi min haarun ala naar way lum bi tas ko ñeel na yaayam haalikan kooku alakuna min chatmi zi karamin ndax yaa ngi saaga borom borom teddange min chatmi zi karamin yaa waylahu baada man noonu laa ko waxee yaa waylahu baada toskore ñel na ko alaku na hmm? eh, ab nga xam ne jaamu dinaar xaalis rek ngay jaamu ay nit ñoo jox xaalis rek pour ngay ŋàññi wali yàlla yi di leen saaga hmm? mu ne te zummuhu hasadan li kawnihi madadan taw an wa karhan wa saaqi kaasi aswaar mu ne te zummuhu da ngay ŋàññi bàyyi hasadan ngir kiñaan gi fees sa xol te zummuhu hasadan li kawnihi madadan ndax ndollal la ca yàlla yàlla indi bàyyi mu nekk ndollal diggante yàlla ak bindeef mi maanaam képp ku bëgg am ndollal ci yàlla il faut nga jaar ci moom loolu moo fees sa xol bi kiñaan nga koy nga koy nga koy ŋàññi te nag la la la la la la la yartaqi wala yanaalul ula man tabkuhul xadabu anta rasul daan na wëy ne wala yanaalul ula maanaam du jot maqaama yu kawe yi man tabkuhul xadabu koo xam ne jikkoom rek toujours mooy mer lu yàlla may nit te mayu la ko rek nga mer mu ne kooku du mus a jot maqaama yu yi باينس نك فا نوبالي كو نينه بيد اني لا احسد احدا ولا يقع في ملك الله شيء الا وكنت راضيا مستريح البال بيد اني من باي لا احسد احدا دوما اينال كين كو يالا ساك في تي سنغال ولي يالا غوني لب لا يالا ماي باي نانغول نالا كو تي بيند نكو تامي لام ماي شيخ عمر فوتي باي نانغول نكو لام ماي شيخ احمد بامبا باي سو خوي القاب يم جوخ شيخ احمد بامبا في تي سنغال امول بن سيرين كو جوخ شيخ احمد بامبا لم ماي سيدي الحاج مالك سي باين نقول لكم باين بيت اني لا احسد احدا من دم انال الكم ولا يقع في ملك الله شيء غورب يالا كي دار شي ورد الا وكنت راضيا مستريح البال بدون ما كونتان سي بغل سما خول خمنه سو اذا كانت الاقدار من مالك الملك فسيانا عندي ما يسر وما يبكي باين انا ماغي وي وي بو خمنه ñama jiituwoon نيوكو ويون موي سو su ندوغال ييب تي yépp ci جوغي lay لا تي كونتان لو اك لا تي la نيت joyloo nit moom moo yem ci man ne ko tazummuhu hasadan li kawnihi madadan yaa ngi koy ŋañ ñi ngir kiñaan gi fees sa dënn bi attanoo maanaa eh, nangu ndogalu ko yàlla li kawnihi madadan ndax yàlla def ko muy madad muy ndollal li mbir mi sax mooy amul kenn tey ku yàlla dolli ci yàlla lu dul ndollal ngi jaar ci Cheikh Ibrahim ñëw ci yow imma nga xam ko wala nga ñàkk koo xam loolu waxuma ko misri moo ko wax yaa man amadda jami al kawni muzwujida ولا يرى مدد من غيره أبدا أمدادنا من سواك الدهر قد قطعت ونرتجي منكم بفيضك المدد حتى يدوم لنا وصل الحبيب فقد أفنى الدموع وأدنى الأزم والجسد وغادر القلب في يأس وفي طمأ لكونه اليوم لم يوجد وما فقد بشري موي wax موي wax باي baay fekkee wu نتلي موغا damay nettali moo باي يا من أمد جميع الكون يومي دولي amatta كونك mus wujji daal depuis bi leen yàlla sàkke asamaan yeeg suuf sax wala zarratun illa wafadat bi qismati kawnu la wax waxul sax mën naa maanaam waraa mbindeef mi nga xam ne dañuy dund am xel mais kawnu gi ba ko yàlla sàkke ba léegi même pepp atom yi naaw bu ci am ndollal ca yàlla yàlla nga ko jaarale ci bàyyi yaa man amadda jami al kawni mus wujji da wala yura madadun min gayrihi abada kenn du gis ndollal jóge ci yàlla ñëw ci kenn ci kawnu gi lu dul jaar na ci Mawlana Cheikh Ibrahim waaye ne ko lan la mu ne am daaduna min siwaaka dahra qad qutia xamal ne bépp ndollal gu jóge ci yàlla ñëw ci ñun jaarul ci yow dog na ndollal gi benn bunt la am mooy sa bunta ba narta ji mun ko moom bi fay dikkal madadaan maa ngi yaakaar ci yow ci sa ngëneel ci sa faydu al madadaan ndollal ci yàlla xatta yey duma la naa wasula bañ mën a jokkoog soppe gi mooy yàlla ak yonent bi faqat af na dumua jooy nañ ba suñ jooy ba su ronkoñ jeex bëgg nañ soppe bi ak bëgg yegg soppe gi jooy ba suñ ronkoñ jeex afna duma wa atna al uzma wal jasada suñ yaram feebar na suñ yax feebar na léegi liñ bëgg rek mooy nga dolli ñu yow Mawlana Cheikh Ibrahim Niass moo tax Seyda Ruqya ne ko tazummuhu hasadan li kawnihi madadan aw an wa karhan neex la naqadi la baayaay madad kenn mënu ci dara wa saaqi kaasi asraari moom mooy nandale tamit kaasu secret yi ko ca yàlla mhm. kooku la bàyyi tuddee fataatul hayyi mooy jàmbaaru quartier bi fataat mooy jàmbaar Baye Niass ba muy ba muy marsiya Seydi Aboubacar Niass mooy Serigne mbay ba mu génnee àdduna Baye di ko marsiya Baye ne ala rahimal ilahu axi wa hibbi aba bakrin fataya wa rasa sahbi ala rahimal ilah yàlla na yàlla yërëm axi sama frère bi ñu bokk Baye wa hibbi sama soppe aba bakrin fataya mooy sama jàmbaar ji fataaya innahum fityatun amanu bi rabbihim kon fitya al futuwa maqam futuwa mooy nekk jàmbaar مقامرا إلا فت لا فتى إما لا سيف إلا ذو القفار ولا فتى إلا علي هادم اللذات لول لن بنون نانتي جاسي سيدنا علي بن نانتي لا سيف إلا ذو القفار جاسي أمول ذو القفار ولا فتى جمبار أمول إلا علي بن سيدنا علي موتاخ وي كات بن سوري ولين سي ان الفتوه رتبه ما نالها الا القليل من الرجال الكمدي مثل الخليل ويوشا من بعده أصحاب كهف في الزمان الأول إن الفتوة موي نك دو نك جنبا فتوة إن الفتوة رتبة ما نالها إلا القليل من الرجال الكمل كن جاتوكو دودول توت سي بور ني ماغنا تي يالا مثل خليلكم خليل القران ني يونت يالا ابراهيم جيلنا سيمن بي ها ياغي ديغ دي غور يالا ني نيكون جروم ني كان من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ودفني سن يالله كي دي توني نيو يعني جلوم يالله لون ينت يال إبراهيم دمت لين إبليس والدنيا ونفسي والحوا كيف الخلاص وكلهم أعدائي يعني كان موقع دف يعني سمعنا فتى يذكرهم دقنا بين جنبار يذكرهم جو وقت جلو يالله يوخي كو جو وقت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ينا تيال لنا دمت سن يالله su ngeen génnee dem di taxañ yi wala def seen feet yi loolu nde kay am na ay silmaxa yu nekk ca ca koñ ca dëkk ba ca ca kër ga dégg nañ yoon ci yàlla ibrahim la muy wax ñu ne sami ina fatan yoon ci yàlla ibrahim tuddee nañ ko fata ndax dafa dammati yàlla yu dul yu dul yàlla ñu ne kan moo def li mu ne faalawu kabirum kete kabir bi mooy yàlla ashaabul kahf alquran ne innahum fityatun amanu bi rabbihim ashaabul kahf ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo gëm seen borom asa ku def lu rëy jox la maqaama futuwa mooy nekk mag nekk jàmbaar asxaabul kahf dañoo def lu rëy alquran tuddee leen innahum fityatun amanu bi rabbihim euh, sayda ruqiya moomu waaye tuddee nañ nit dana nekk jigéen fekk góor na sayda mariam ñas sayda mariam ibrahim ñas mi nga xam ne macha allah man dund naa ak hmm. ci école am euh, ñeenti at macha allah quatre-vingt-dix-huit ba maa ngi ci école u Seyda Mariam Niass di di di ko jàngaleel macha allah gis naa ci ay qualité yu rëy yu mag yu kawe macha allah bëgg alquran nu tamit Maulana Cheikh Ibrahim Niass di bëgg alquran ak ci liggéeyal alquran wax na soosu Seyda Mariam Niass defoon naa ci moom xasida xëy na yàgg na du tey waaye comme que dañu ne woon dañuy waxtaan ci yaruk euh, jigéen ci xadara Cheikh Ibrahim Niass te ñi Cheikh Ibrahim yar bari loolu te mu bokk ci macha allah am na sax ay lettre yoo xam ne wonoon na ma ko diggante mag Maulana Cheikh Ibrahim Niass am ci ay abiyat yaa ngi dégg yu bàyyi iqtibaas macha allah jëmale ko ci moom bàyyi su jëmale abiyat mel noonu ci doomam day fiir ne doom ji am na fu mu tollu bàyyi xasida baa ngi fii nii maa lil jalilati binti cheikh min masali وليس ماش كمن يعلو على زهلي ما للجليلة بنت أمك كيد دوم شي إبراهيم يس أم المثل أم النور وليس ماش كمن يعلو على زهلي من كوي دوخ تانكم بقول أكو خم خامني تانكم تكو تكو بديو بيديو كو تودو زهل مانا كوي دوخ تي سوف أك كو تانكم تكو تكو بديو زهل نيو نيو garaat maanaam ku bàyyi yar donte jigéen nga da ngay nekk góor da ngay raw góor ñi cheikhaan yi dafa lettre di ko wax jigéen su tarbiyoo ba yegg yàlla est ce que dañ koy jox maqasid yi ñuy jox góor ñi mooy maqsadu fatiha ak zajru ak maqsad salaatul fatiha ak zajru ak sirru ziyaara est ce que dañ koy jox jigéen comme niñ koy joxee góor waaye xamal ko ci bayti yam ko tontu ne nit ki am na fu muy toll kooku duñ ko firee jigéen kooku góor la donte jigéen la nit ki am na nu muy yeesee nag wàcc donte góor la kooku jigéen la moo tax Cheikh Tijaan daan wax inna mina rijaali nisaan wa inna mina nisaai rijaalan باين يسنك أما المقاصد فحز عارف ما كل مجذوب بذاك العارف بل من بقي بعد الفناء وسلك نهج رسول الحق والنفس ملك هذا هو الرجل أنثى أم ذكر وسر للغير وبال وخطر أما المقاصد مقصدي التربية أم فناء نحن ما التربية نبت إتاب إتاب الفناء في ذات الله يأتي جم يالك كفا يجك إفاسر لب سخل يالله وكذن تجيان بورلا كيف كو خامني لودو يالا جارنا سا ديغنتك يالا با غيسو يالا ياو دونت غور ديغن امبل مقاصد مقاصد فحز عارف شرو عارف بالله لا ان كان ماي عارف بالله ماي كو ام فناو كسر من ديت ما كل مجذوب بذاك العارف نيكول كو ام جذب تي يالا دي دوند فناو دي واخ غيسو ما لودو يالا دي عارف fa nekk yàlla rek a fa nekk mais day wàcc ci maqaama baqaawu la farquhu yaxjibuhu an jam'ihi wala jam'uhu yaxjibuhu an farqihi kooku ñu dog ko tudde aarif billahi muy gis mbindeef mi te mbindeef mi du jaar diggante mag yàlla muy gis yàlla te yàlla du jaar diggante mag mbindeef mi kooku la ñuy tudde aarif billahi waaye kuy gis lenn bi sooy gis mbindeef mi kese gisoo yàlla maxjub nga sooy gis yàlla gisoo mbindeef mi majzub nga waaye su nekkee ne yaa ngi gis yàlla te jaarul sa digganteeg mbindeef mi yaa ngi gis mbindeef mi te jaaru sa diggante ak yàlla yow la ñuy tuddee aarifu billah wa fil xalqi aynul xaqi in kunta za ayni wa fil xaqi aynul xalqi in kunta za aqli wa in kunta za aqlin wa aynin fama tara siwa ayni cheyin wahidin fihi bi shakli kon kii ni aarifatu billahi la sayda mariam sayda ruqiya aarifatu billahi la ñii dañoo génn ci école Maulana Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne ay jigéen génne nañ fa raw ay góor ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal seeni fan ànd ak wér ànd ak tawfiq yàlla bàyyi ñu fi sayda fatimatu zahra ànd ak wér ànd ak tawfiq mu bàyyi ñu fi alxalifa cheikh ahmad tidiane ibrahim ànd ak wér ànd ak tawfiq mbooleem projet yam sumb ci xadara bi ci pays cheikh ibrahim ñas moo xam fii la wala fudul fii yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam ba mottali si jàmm dëkk bi yàlla na fi yàlla def barke yàlla na yàlla boole xol yi maana ICS ma macha allah jambiya bi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ñu nekk bootu ginnaaw khalifa si Ahmad Tijaan Ibrahim yal na leen yàlla defal tawfiq ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yal na yàlla bindal barakatul xidmati ci daraja yoon si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgguma xaabaabal ndax guddi gi suñu guddi sëy barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu Thank you.